Thank you. Thank you. nañ dem ba si biir rek moo gën baax na baax na. bul door bul door. ñëwal après ma branché la sama bos sama bos mi ngi fi moom laa wax non non après la fin. Tá, eu vou dormir no banho, como é? ayca mbokki internet yi ñi ngi taxaw ak Am Bongo moom nag eh, jàpp naa ni kenn dootu ko présenté Sénégalais yi nga xamante ni ñoo jàkkaarloog moom eh, tey Fama Faye di maye doomam mu ñëw teewal ko am maa ngi lay nuyu. aji maa ngi lay fay tey bëggee tamit nga fekk ma ci bésu Fama fay géwél bi tey jii nii li ma introsé daf may neex trop maa ngi leen di jaar yëpp ak euh, waa internet bi site internet bi ñuy suivre ñëpp sama fan si maa ngi leen di bëggee. Hmm. tey boo ma doon wax sa diggante ak euh, ki nga xam ne moom mooy Fama Faye tax tey nga déplacé wu jóge Dakar ñëw fi ba Thiès euh, ngir bëggal ko ci xew doomam. mbaa bu dem ak laata mi ci loolu mbar far far kooku dafa baax kooku dafa baax Fama original la faama fay mu absigiro faama fay mu tima am faama fay mu roqi maska doon marque waaw doon ku baax ku bëgg nawleem buy xewal tey doomam bu jigéen bi dañ ko war a ñëw àgg si ndax man ñëw na ba sama dëkk àgg si ma waaw ku baax. ay mhm. seen relation. jigéen la faama ñëpp ko bëgg ndax xolam bu rafet bëgg nitam sama jigéen la bëgg ma trop sax. yaa mm. suma jigéen la. jigéen la mm-hmm. mu nekk ci milieu muy animatrice boo xamante ne yaakaar naa ne sénégalais ràññee nañ ko bu baax mu nekk ci métier boo xamante ne métier bu danse comme ni koy nit yi di waxee mm-hmm. euh, tey noo gisee taxawaay bi nga xamante ne am na ko ci. waaw Fama marque la fexe na ba def boppam marque ci li muy liggéey fexe na ba xam li muy wax fexe na ba boo ko woowee mu am yi fii yaakaar naa kuy liggéey ci loolu loolu nga bëgg foo fu mu la defalee rek day ami fii waaw ku def boppam marque ko xam li muy wax. Uh-huh. tey boo mën conseil boo koy jox ci métier bi parce que gis nañu bëri na coow euh, tey moom ak Mame Ndiaye Savon suba moom kat jàmbkatu jiw yeeg yi ni mel tey boo mën conseil boo koy jox. bis la nekk na jàmb rek. Ah. Mm, soo la nekk na jàmb rek na dem rek gis nga li ngay liggéey moom bool boo bëggee def ñam il faut nga raxas ko loxo ba koy raxas foo jaar mu tooy kon mënoo ci ñàkk dugg yaa ngi ci soo bis bi foo jaar nga dugg si séntul lu ne xaaral lu ne. xaaral lu ne. mais am lan moo tax euh, gisuñu la jamono ji ngay tëgg ci boîte de nuit parce que mën naa wax ni ci xew yu mag yi lañuy dem di la fa fekk ak yenn soirée yu mag yi nga doon dem di fa di fa daan sa doole mais duñu gis am tëgg lan moo tax. waaw damay bañ invité leen ngeen ñëw ma di leen di tegal ay kasaw kasaw dama bëgg am album dama bëgg professionnel ba bu ngeen ñëwee sama soirée duma làmb lu may wax ak lu ma dul wax dañu naan tak tak ñu mu doon benn son buy dem club yoo xam nangum dogal réseaux sociaux nga am say son yoo xamante ni répertoire la ñi lay consi dinañ mën a bëgguma leen oo ci lu ñàkk fay yéen ñi ma bëgg ay faris ngeen li ñoom am bongo di def ñoom Bass Thioung di ko def mën nga ko si déggoo li ma la wax mhm. man dama bëgg def professionnel dama bëgg am sama album tour soirée du wees man bu ma demee ba leen di oo dama leen tegal album ku nekk naka ngi liggéey ku nekk ak na ngay defee sa affaire waaw lu ñor tàbbi lu ñor tàbbi soirée rek laa bëgg non ba léegi waxuma loolu aji tey moom faama géwél doo nga ma ànd ak tam ñu waxtaan nii xam nga bañ maa boole kenn da nga fimisee yëpp mhm. damaa gis rek ñoom Ousmane Bongo ñoom Bass Thioung ñi ngi créé di tëgg ay soirée te yow ku ne xam ni nga mel ci réew mi faramaare ni bëgg la lool ba tey ji jéemoo def waaye information ñëw na tima ñëw na seetaanu leen Fama Faye yéen a takk seeni million jàppale Fama teel a ñëw wecc ku ñëw taxaw yaakaar ne ñaani mën a si ko ki yërëm Fama Faye ki mën a dimbali Fama Faye ki mën a jàppale ma Fama Faye ki mën a secours Fama Faye ki mën a dooleel Fama Faye